waaye dëgg la yàlla buur bi yaay Karim li coow li bëri bëri tubaarkàlla yëngu yi bëri bëri bu keroogee yomal xiyaam yàlla rek koy yëngu waaw waaw boo gisee fi mu alima xam nga boo gisee fi mu ibbee mhm. yàlla buur la bu bëgg ku ko jay mhm. yàlla buur la Seex Saad bu bu bëgg ku ko kañ mhm. booy jàng xa ci départ bi da ngay wax yàlla iyaaka yow rek naaw bu du la ñuy jaamu wa iyaaka gis nga iyaaka ak wa iyaaka iyaaka yow rek wa iyaaka ba tey du ma découragé di wax ak yow yàlla ni la nasta'iinu ci yow la ñuy sàkku ndimbal yow la ñuy jaamu ci yow la ñuy sàkku ndimbal doy na buur bu la moom nga wax ko ko mu ne la ñaari yooyu de segam yaa ma ko wax yow mii jaam wax ma loo bëgg ñaanoo ko alal ñaanoo ko daraja ñaanoo ko juddu bu rëy danga ne ko ihdina siraatal mustaqim waaye yàlla na nga ma teg ci sa yoon wi nga xam ni mooy yoon wu jub wi nga xam ni ku nam ma dajeeg sa ngërëm yow mal xiyaam dina ca jaar Iblis dafa waxoon yàlla afa bi ma awaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim damay wax ni Cheikh Saad maam Adama ak Awa bu leen Iblis naxee ba génne leen aljana ku demagul jaaxal a bu ci yàlla jàppul doo ma ndax dégg nga wax ci ma ne Adama ak Awa bu leen Iblis alima mënee nax convaincre leen ba génne leen aljana yow mi demagul jaaxal a gook waaye bi nu fay dem ñoom ñaar leeru yonent baa ngi leen di wër waaye bi mu ganee àdduna ak léegi moom yonent bi Iblis mënatul ci xeetu yonent bi dara wa anna ranna lainu lxab yaxduruhu junuuduhu wa huwa riadidun min a sadami alima ñu am gan nag mu war a way yonent bi nee naa leen li muy mën a way li mu yaroo ko gën li mu yaru li mu daloo ko gën li mu dal li mu yéwee na ko gën dafa bokk ci ay jikko yonent xanaa xamoo ni doy na mbégte nit di la xool di xalaat yonent bi gis nga alima missionnaire u yonent bi mhm. ku ko gis war nga ko xàmmee ci melokaanam mhm. ci waxam mhm. ci kàddoom mhm. ni nit ñi baree ni nit ñi toll ni xeeti mel alima yëg nga avion am na benn écran buy ne sa kanam sa sàdd dëkk boo romb dala koy wan boo xoolee loolu lépp di ay dëkk meloo dëkk yoo xam ne mosoo cee dëgg sa tànk yàlla ni la même ñii sax maa leen bind ay nit lañu ñooñu ci seen biir am na ko yaakaar waa jooju bu la yàlla seppee ci biir ñooñu ni la boole naa la ak ci ñi nga xam ni sama jaraaf bi faaw ngeen koy tagg te ku tagg yonent bi benn bayit sa yàpp yaram araam safara yow loo defal yàlla lu tax nga nekk missionnaire am bu boobaa nag yaay njëkk daaneel sa bopp li ngay daaneelee sa bopp mooy da ngay tëdd ba guddi ngay xalaat loolu lu ma defal yàlla lu tax mu fexe ba ba xërtal sama xol bi ba ba ma alima xam nga li ma lax bu yàggul olof dafay wax ni nit du nam ko mu xamul waaye yonent bi mosoo koo gis xamoo nu mu mel dan la wax rek ni la lu yàlla bind moo ci gën yàlla defal benn cofeelu logiciel cofeelu système mu bàyyeekoo ci moom jaar ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wasaare ko nit ñi boo ko bëggee ndax ci yonent bi ngay jaar te boo ko ko desene loon mu taxaw di xalaat du ñàkk mu géntu ko mbégte moomu la ci am waaw kooku boo meleen noonu ci moom bu xëyoon jox la loxo ni la Seex Saad bu man la bi nooy def mais mais ca way mu ànd ak Ndey Faatu titi moo ne woon Ndey Faatu gaynde gi dafa ñëw ba dem ah, ku nekk naan maa eh, <laughs> dëkk bi gaynde gi dañu leen mu ngi ñëw ñu dee dëkk bee ñu ne leen gaynde gi mi ngi ci ñu dee eh, dëkk ba ca des ñu ne leen gaynde gi ñëw na ba dem ñu eh, dee ñooñu mooy na ñoo gën a bëgg yaa rasulallah sunu borom wow wow xayrul ku la xam lu muy ku la taam leneen dama bëgg ku ah? ku dégg ah! mais dégg nga wax foofu gaynde gi dafa jub dëkk ah. ñu tiit dee gaynde gi dugg ci biir dëkk bi ñuy tiit de gaynde gi dugg ba génn ñuy waaw ñële mooy ñële mooy yonent yi. ñi dégg ni gaynde ñi nga xamante ni. Mm-hmm. dégg nañu ni gaynde gaa ngi ñëw. ñu tiddee mooy yonent yi. maamadat fatratun mina rusli illa an bashar xawmaha bikal anbiya mooy yonent yi. ñoom ñi dégg ni mu ngi ñëw ñu tiddee mooy ñu nangul ko. Oh, ñi ko fekkee bi mu duggee ci dëkk bi nag mooy saxaaba yi mu bokkaloon. ñu ànd ak moom tiddee jàkkaarloo ak moom. gaynde gi ñëw na ba dem mooy ñun ñu ñëw ci ginnaawam. dëgg la de te a bëgg. te te te suñu tërëndoo damay wax ni. damay wax ni Alima balaa ngay xam mbégte waa jooju pire. ni yow mal xiyaam xateeg ni mu mette mu ni bëreet jug taxaw. ayca ni ana baayu tërëndoo yi. kullu nabiyyin yawma yub'asul bashar bés boo xam ni yow mal xiyaam Alima mboolem yonent yi kenn ku ne. boo dekkee di nga stressé ndax ñàkkul ni am na loo musa def lu la yàlla war a laaj kullu nabiyin yow mayub asul bashar yàlla nee na ci jëmm juy taxaw aadama laa ci njëkk bind roof kooku xawaa bàyyi leen aljana ñuy noos ñoom ñaar kullu nabiyin yow mayub asul bashar li gën a neex aljana ñoom ñaar aadama nga faak soxnaam joxewul dépense fayul location te teraanga yaa ngi ko fay fekk kullu nabiyin yawmin asul bashar waaye yàlla nee na am na bés aadama rëccële tooñ ma yére yi mu soloon naaw mbaxane mi naaw dàll yi naaw bu duloon te njol màkk ak baatinam ba mu ñaaw ca bés boobu kullu nabiyin yow yawma yub'asul bashar yonent yàlla Moussa demal ci alxuraan turama ëpp ci alxuraan yàlla nee na bu yowmal xiyaamee bu dekkee dina stressé foog ne am na fu may jaar ak moom. Cheikh na Cheikh Saad Bou nee na kullu nabiin yawma yub'asul bashar. alima mboolem yonent yi yonent yàlla noox bokk na ci ñi ci ëpp at waaye nee na am na fu ma jaar ak yàlla ndax maa ni ko askan wi nga ma booleel bul bàyyi kenn muy dund ñëpp. Oh, rabbi la tazar ala al ardi min al kafirina dayaaran innahum yulidu ibadaka wala yulidu ila fajiran kafara rabbi fir li wa li walidayya wa li man daxala al bayti muminan wal muminin wal muminat sallallahu alayhi wa sallam يوم يبعث البصر تحت لواء المصطفى قد يستر كلهم يوم يبقى ينتيا يدعى إلى الشفاعة xoolal jaloore yooyu ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi ci sa bopp Xalilu Laay Gay xoolal alima balaa ngay xam ni mooy noobul pire Cheikh Saad bu mboolem yonent yi ku dekk yow mal xiyaam 123000 yi di nga xalaat ni am na bés ma def njuumte bala may lijjante sama xeet li ma séq ak yàlla moom bëgg maa dinaa yeyal sama bopp ba noppi doo koy lijjanti sama xeet taxta liwaa'il Mustafa taxta liwaa'il Mustafa qad قد استهار كلهم يدعى إلى الشفاعة waay waay looloo neex alima yàggu fi sunu waa ji li muy baax sàggu sunu waa ji yàggu fi yàqu fi juróom benn fukki at ak ñett la dund 63 ans mais bu yowmal xiyaame mboolem yonent yi taxtal liwaa il Moustapha ci ronu njool màkk la ñuy doxee. kulluhum yudaa ila shafaa te damay wax ne alima dekki njool màkka yowmal xiyaam jar naa teel a dee da tant boo dekkee yowmal xiyaam falam yijib daahi tilka shaa Mustafa meloo mboolem yonent yi dañuy rang malaaka yi rang jinne yi rang ba mu des yonent bi yàlla ni jibril àndal ak malaakal mawti dem leen Medinatul Munawwara ngeen yeewi ji Rasul laysa lahu waaye xam nga lu neex mm. jibril wàcc ak malaakal mawti ànd ak ay laafam ñu fëgg bàmmeelu yonent bi ali ba bàmmeel bi ni daj xar njol màkk génn njàpp la mu génne waale woon àdduna rasul moom lay dekke yowmal xiyaam xool xaritam bu baax ba aboubacar fi nga nekk di ko mim neex na ne aboubacar jógal omar jógal ali ba nabi jóg omar jóg aboubacar jóg ñoom ñett ñu ni ñokket jóg alima foofu ngay xamee ni lu waay mënal waaye moo feeñ fa sunu waa ji gën ji mindeef moom ba ko yàlla naan ko attaxiyaatu lillahi ndax da nga koo fàtte rasool azakiyaatu lillahi ndax da nga koo fàtte rasool attayibaatu salawaatu lillahi ndax da nga koo fàtte rasool assalaamu alayka ndax da nga koo fàtte rasool ayuhan nabiyu ndax da koo fàtte rasool wa rahmatullahi ndax da nga koo ndax da nga koo fàtte rasool alima nabi ni ñokkat jóg yàlla nee na ko bisu tay bi laa doon xaar li ma neex yowmal xiyaam te ma yàqam ci mu jot alima te bëgguma dee rasulaay nee na bu ma dekkee yowmal xiyaam dox ànd ak junni malaaka sama ginnaaw wa fi waraa i alfun min al malaikati ka annahum lu ululul maknun waa ji nee na bu ma dekkee alkaramatu wal mafatixu xiina bi yeddi abarul abraari atqal atqiyaai xiiratal axiyaari sayidu rakiina sayidu saajidin sat bu xam nga lu neex